wëndeem yàqu ci te lépp di fenni neen fenn yu toll nii ku ko fenum réew sa xel warut xalaat jéem koo jiite maintenant nag bu moom bu amee bu bu amee fayda ba jàpp ne war naa mën a jiite réew mi bi mu ko defee lu bon li ma noppi ñi ñu dénk réew mi moom war nañu am fayda ba du ba du nekk candidat et je crois très honnêtement mu ngi suñ ginnaaw waaw loolu moo bi nag wóoruma waaye li ma jàpp mooy ñoom ñëpp. kenn waru ci nekk mieux man li ma gëm. ne ni ñu jàppe Ousmane Sonko dissoudre Pastef képp koo xam da ngay responsable lu Pastef waroon nañu laa jàpp na ni ni ñu jàppee Sonko jàppee ne Bassirou Diomaye ñoom a jàpp parce que nag tooxi doon bi ñu a ci bokk. maanaam tey ñoom ñooy seul responsable ci mais bien bi muy wax bi muy euh, wax yëm tudd dañ ko violé mais waxul Pastef moo ko violé Ousmane Sonko la wax Ousmane Sonko moo politisé loo xam ne affaire boppam la hmm. te nag yéen bu ngeen gëstu tuuti xool Ousmane Sonko ni muy wax ngeen xool su ko baax da ngeen xam ne day fen parce que d' pour affaire Adji bi ñu ko nee bi ñu ko jiiñee viol bi li mu njëkk wax mooy musuma dem salon de beauté xawuma salon de beauté xawuma Adji Sarr ñu toog diir bu gàtt mu mu ne ah déet ma safaat amaat booba la wax ji waroon a jeex ñu xam ne kii tam li naa fen mu ne noo dama fa doon faju ji damaa yor douleur lombaire xam nga douleur lombeer amaat lan la métti ban métti la tollal ci méttit muy mm-hmm. jigéen ji am doom yow man ngaa imaginé jigéen ju nekk di am doom jël woto di ko dawal di wuti gynécologue loolu am na yow yan na maanaa ci yow mais yëmul foofu mu ne ñoom Adji Sarr yor nañ ak ak Khady Ndiaye yor nañ boo xam ne dañ leen koo may ñu autoriser leen pour ñuy faj douleur lombaire amaat boobu yéen ma jaay bu ngeen demoon ministère la santé direction des établissements privés de santé laaj leen ndax Sweet Beauté am nañ këyit bu leen autorisé ñuy fajam de ñun la waxut waxu amu fi ngeen xam ne Ousmane Sonko day fenn mu ne ñàkk xaalis moo ko fa yóbbu yéen ñun ñëpp dégg nañ ko jëkkëram day xarit jaay ne am na bis mu ñëw fa bàyyi fa cinquante mille francs jox ko aji saar or wetu kër këram wetu këram kër cité kër góor gi am na cabinet kinésithérapie bu fa nekk boo xam ne ay docteurs yu ñu formé ñoo fa nekk ñu am agrément mais foofu boo duggee dix mille francs ngay fay la séance te bu dee député deux mille ngay fay assemblée fay huit mille kon boo xoolee lépp ay fenni kese ay fen nag nga taal cim réew ah ña nga xam ne ñoo yor réew moom li ñu waroon def am na ci lu ñu def mooy jàpp gi ñu ko jàpp jàpp naa ne dañ ko yéex a def mais war nañ ko teel def mm-hmm. dissoudre partem yéex nañ ko def mais dañ ko def nañ ko mais ma jàpp nag mooy képp koo xam ne da ngay tuddoo Pastef ci ab ci responsable waratuñ laa bàyyi ci kaw léegi lan Sonko lan mooy point mooy secret ba tax nit ñi di ah, yow itam loolu amaat waru laa jox Sénégal moo mel noonu xam nga si Anta Diop dafa doon naan Sénégal yi seen xel yi daa ràgg waaw <laughs> askan wu xel wa ràgg ab saay-saay bu ne mën na leen fëkk Uh-huh. c'est-à-dire euh, euh, xam nga réew mi amaat li fi ëpp ay gone lañ Sénégal boo ko xaajee ñaari xaaj dix cinquante pour cent yi amuñu dix neuf ans mooy gone yu ndaw lañ mm-hmm. un ñi jàng deux ñi jàng bëriwut ñi jàng ñu jàng li liñ jàng li ñu jàng liñ jàng dara xamuñu ko ci c'est-à-dire que réew mi mooy li Cheikh Anta wax naan xel yu ràgg réew mi xel yi dañoo ràgg aw askan nag bu xel ma ràggee day yomb nax mais nag cest à lii daa feeñ ci Ousmane Sonko ci naxu politique waaye yàgg na fi même yeneen côté par exemple da ngay jël de 1993 hmm. ñun ñii ñëpp bokkoon PDS gëmoon nañ ne waa parti socialiste ñoo rey Babacar Seye giñ ko Ablaye Wade parce que par des manipulations médiatiques ay avocats ak journalistes ak intellectuels manipuler ni ñu bañ gëm ko et pourtant teewul keroog bi nga xam ne Ablaye Wade faloon na ñu ñu am ñu gën ñu def amnistie ñi rayoon Babacar Seye Sénégal yi xam nañ ne ñu ñu doon dindi ñoo ko rey du ñoom. Hmm. du ñu am toog nañ fi 1962 Senghor ne Mamadou Dia def mu bëggoon coup d'état ba tëj ko ci kaso bi te dara du ci dëgg donc Sénégal yàgg nañ leen a nax ci politique loolu nag du sénégalais ñoo am faute état bu Sénégal moo moo formé wu sénégalais bañ nekk ay citoyen nekk ay républicain ba ba ba ñu feri nax moo tax saay-saay bu ne mën na boo gisee li may na toujours ne Sénégal seen mbooloo muy mbooloom politique ak mbooloom diine foofu foo leen fi seen boo def ndax ab ponk la naxekat moo fa waaf.

pur am ca. taxaw am taxaw am ca. Mhm. waa PDS am ca boo boolee lépp ay 1 million 100 mille voix la boo xoolee Benno Bokk Yaakaar moom li mu am. ci élection yi lu mu tudd mën na 1 million 500 mille. kon fan la nit ñi tër loolu c'est loolu c'était propagande ay éléments de langage. yoo xam ne waa këram ñoo koy wax pour pour ñu mel Ali Kalaj gi du mag Macky la mu ragal Ousmane Sonko wala mu ñeme ko déedéet c'est pas ça débat le débat mooy Ousmane Sonko dafa fen Sénégalais yi ne dañ ko complot. fenn sénégalais yi ba fen yooyu nag jur mbooloo mu faatu ak alal ju ba alal ju bari ju fi yàqu loolu mooy ali këlaj ji mais ay Macky Sall mu ko ñemee kooku seen du problème mu nit ñi mais moom ci fenam musiba naarullahi moo xam ne dal na Sénégal kii la jógee loolu moo am solo gis nañ fi ku fi nekk candidat nekk ci prison bi Khalifa Babacar Sall oui waaw Sonko euh, tey jara mandargul eh, bokkuñu xam nga xam nga xam nga c'est pas la même chose c'est pas xam nga souvent damay dégg léeg sax ñuy comparer ay Khalifa Sall Karim Wade ak xam nga lu tax loolu war su ko def mooy Khalifa Sall état moo ko doon topp ci fausse facturation maanaam di tibb ci keesu mairie Ndakaaru di ko ci dugg caisse d'avance man du ma ko tudd sax caisse d'avance fausse ah facturation laa ko tuddee ah bon Khalifa li mu def lépp ñoo ko ji moo li ñu ko jiiñ lépp moo ko def moo doon defar ay fausse facture ñu jo ko jox 30 millions par weer mu ne da jënd dugub ak ceeb te mos cee jënd dugub mos cee jënd ceeb ah, loolu fausse facture c'est de la fausse facturation c'est ca loola ko dégg nga Karim waaw kër yi mooy al yor alal ju ju gis nañ kook moom ay milliards ñu laaj ko pour mu indil ko lay mu ci indil lay yu wóor génn nañ ko la ca des ñu dik ko topp ci lañ mais Karim kii euh, euh, Ousmane xale bu jigéen bu amagul ñaar fukki ak benn moo ko doon topp ne da doon da ko doon da koo moo ko topp ne daf ko daf daf ko fenal yàqub deram kon moom ay nit la amal problème mais amul ak état problème encore une fois loolu aussi yéen war ngeen ci war ngeen koy leeral sénégalais yi. bañ bañ a daanu ci kàmm gi nga xam ne ñoom moom lañ tëral Ousmane Sonko pour pour déresponsabiliser nit ñi. parce que bu ñu nee moom dañ ko complot rek mooy kon li ko dal tëgg ko boppam or ba muy jógee këram bàyyi fa ñaari jeeg ne day foroote ji àndut ak sëfoon àndut ak gàddu koor lu ko fa dal da ko war a am ngor assumé ko parce que ba muy dem kenn yëgu ko. loolu mooy nit ku baax. léegi le 4 janvier 2023. 4 janvier 2024 mu nekk procès entre diggante Mame Mbaye Niang Cour suprême war a ndax am nga fa yaakaar. non non man du ma am yaakaar ak du ma amul yaakaar non non man amuma yaakaar ak ba ñu xam man li ma am mu Ousmane Sonko daa toog Sénégal yëpp di ko xool. mu génne portable am ni yor na rapport IGF IGF bu takkal Mame Mbaye ci détournement de 29 milliards Mame Mbaye porté ko plainte ñemewul dem parce que bi mu koy wax ne na ne waxul dëgg bu dee loolu mooy diffamation ci wolof nan lay tekki mooy fen yu ànd ak yàq deru gor bu doon ci république boo xam ne réew moo xam ne l'islam lañ fay attee Ousmane Sonko danañ ko dur juróom-ñett fukki yar yoon ndax daa fen yàq deru gor duutu fa mën a nekk ilimaan duutu mat seede ca ca réew mooma waaye nag Sénégal moom da ngay gis ay sëriñ yoo xam ne wala ay doomi sëriñ di ànd ak moom alors que def na tooxi doon a wutal nii boo xam ne l'islam daf ko bañ. ba léegi ci procès Prodac la ñuy wax waaye du waxutuñu ay ay rapport non mais non rapport non non procès procès Prodac waxuñu ko. procès procès rapport lañ toll fii nii moom moo ne. Sénégal yëpp di ko xool mu ne yor naa rapport bu takkal ma mbay benn neuf milliards yi mu sàcc euh, kii nu mu tuddati Prodac ma mbay porté plainte ne ko indil par indil rapport bi rapport ba ba àdduna tukki Ousmane Sonko du ko indi parce que aw fen la rapport bi amut. comme ni ma ni ni nga xam ne ba ba adduna tukki Ousmane Sonko du indi lu firndeel ne Mamadou Diallo détourné na 94 milliards ay feneen kese la te nee na moom Mamadou Diallo détourné 94 milliards nee na xam na sax banque ba xam na numéro banque ba ma di la wax ba ba adduna tukki Ousmane Sonko du indi loolu parce que li mu wax du dëgg kon moom en gros boo xoolee depuis qu'il a commencé à faire la politique ci fen sos yàq der ak yee fitna ci la defee politique. ba am na ngay wax waa Ziguinchor bi mu nekk seen maire ñoom gisuñ ko. ah duñ ko mën a bon pour le moment dañ ko tëj dañ ko tëj mais cest ñoom ñoo sàggan ba di ko def mais parce que koo xam ne di dund ba am ñeent fukki ak nag mosu koo sax wote. il est démocratiquement. xam ne dund nga ba am ñeent fukki at ak parce que dégg nañ ñu naan ñu naan suñu doom ji. waaw ñoom ñoo dóor seen loxo ci ëkk. mais li ma jàpp aussi nag léegi te état bi révoqué ko en tant que maire de Ziguinchor. Ah. Ah. parce que ah oui bien sûr parce que nag quand sa lii dire li ñu koy topp moom mënu su ko topp. mais benn comité bu xamante ni nekk fii une commune wala ville de Ziguinchor amul maire. non am na maire mais moom Ousmane Sonko ba léegi mooy maire bi non non ba léegi moom il peut déléguer ses pouvoirs loolu ah yoon may na ko il délègue ses pouvoirs à son premier adjoint wala benn adjoint bu ko neex. mën na ko déléguer ses pouvoirs muy def ak moom la. du mais non non non pour le moment tant en prison comme Khalifa Sall nekkoon na prison nekk bi ñu ko révoqué la la la door a door a bi lañ ko door a xañ mairie bi mais pour le moment Ousmane révoqué guñu ko mais je crois que loolu euh, li ci des bëriwut je crois war nañ ko révoqué balaa yàgg bu ko defee ñu waa mhm. ah, a euh, nga gis nag jox ko délégation spéciale. ci mel ni ki bokk si ñoom di euh, secrétaire national à la communication l'ex parti Pastef El Malick génn na ne doo gis fenn ñu ànd ak Macky Sall wala ñu jàppale ci compte fi ñu waxee ne am na droit bu bu tax Sonko a nekk candidat ci même élection président en 2024. ñoom <laughs> xam nga ñi ànd ak Macky Sall du ñooy wax am na droit wala amul nga mën nañ ko wax. waaye ñiy wax ne Ousmane Sonko du bokk. Ah. yoon rek moo ko mën a wax. ok parce que en réalité xam nga ñoom seen tool yi dañoo bari. mais mais mais nga du bokk te yow xam nga doon leen maa ngi ñëw. xam nga ñoom dañuy ñaan bu bari dëgg réer. waaw loolu moo leen intéressé. seet dama nañ delluwaat ci Ali Kalaj Ja. d'accord Ousmane Sonko Adji Sarr daf ko jiiñ ne ko da nga ma violé ñu woo ko tribunal ne ko kaay layoo mu ne duma ma dem magistrat ay magistrat Macky Sall la. waaw ah, loolu moo ko wax. moo ko wax du ma dem ay magistrat Macky Sall la ñu atte ko ci wuuteem code électoral bu Sénégal moo ne képp koo xam da nga dañ laa àtt ci sag wuute. waaw dañ lay génn ci liste électorale bi. code électoral bu Sénégal ne kuñ génn ci liste électorale bi doo mën a nekk doo mën a fale doo mën a falu kon li tax ñu ne Ousmane Sonko mënta nekk candidat ci ñaar yii la. mooy radiation condamnation par contimence bi mooy la moo indi mooy mooy del mooy dalil mooy yil mooy yillay radiation bi radiation bi aussi ministre de l'intérieur li mu war a def maanaam pour yëgal ko ko def na ko kon encore une légalement Ousmane Sonko mënatul bokk ci élection mënatul nekk électeur mënatul nekk candidat légalement sa sa radiation est légale parce que li li nga xam ne moom la code électoral wax ne bala ngaa rajji nit ki na ko am na ko wutal aw lay lay wi nga xam ne moom la administration bi jël mooy la condamnation par contumace sa code électoral ni képp ku ñu àttee par contumace dañ lay génne ci liste électorale mm. beneen lay beneen beneen bi ci des mooy code électoral bi ne bu ñu la génnee nag nañ la ko yëgal ministre de l'intérieur jox ko huissier de justice nga xam ne ay waxam kenn du ko dindi moom moo wax ne yëgal na ko Ousmane Sonko encore une fois euh, légalement Ousmane Sonko sa radiation pardon est légale légalement Ousmane Sonko mënutul bokk ci élection bi kon moom buy wax loolu day waxe bànneex rek waaye nag ñoom nañ ko ne di waxe bànneex rek léegi gudum bu nekk du déet du loolu moom moo ko wax xamee ah, du ko xam nga yéen da di fekk xam nga wala encore une fois sax ngeen di xam ne il n'est même pas doctorant ah bon mais bien sûr ngeen naan ay xam ndax constitutionnaliste wala wala non mais Sénégal moo neex ko c'est-à-dire <laughs> léegi ay ay ay lan ce que moi j'appelle ça des des nervis constitutionnalistes <laughs> ak des mercenaires électoraux c'est-à-dire ngay <laughs> experts électoraux yoo xam ne boo doo xam fu ñu ko tër. damay damay ñëw ñu xëy ñu xëy ñu xëy benn jour. conseil constitutionnel actuellement mi ngi yore dépôt mi ngi yore dossier Ousmane Sonko dossier Bassirou Diomaye Faye ko. da validé wu ñu ko de. du ma dañuy xëy ñi xëy rek supposons ñi xëy. non mënut a nekk. conseil constitutionnel non xam nga Bassirou Diomaye Faye du ma ci sori. par contre Sonko moom mënut a nekk d'abord Sonko amul parrainage. bien sûr. amul parrainage. sa euh, El Malick Ndiaye am na parrainage. mais c'est pas vrai xam nga le parrainage ay fiche bi ñu lay jox. c'est des fiches numérotées. na foofu. oh oh loolu du ne nekkul ci code électoral xam li ma lay wax toujours. amaat ah, amaat xaar max la. waaw contexte bi ñu toll moom yéen ñëpp kenn ku ne war ngaa fexe ba am code électoral bi. parce que bu ngeen ko doon am su politicien waxee waxu toj penc ngeen mën ko weddi. ok guddi yi ñu toll Ousmane Sonko un amul parrainage. am nañ de. bul ne ñoom am nañ xam nga parrainage dafa am condition yu ñu koy joxe. d' abord moo la jox fiche bi. ñu numéroté ko. nga dem remplir bu la neexee nga jël député bu la neexee nga jël ay ay président du conseil départemental ak bu la neexee jël ay dip ay amul fiche bay defari parrainage. muy amul de de dépôt de de de kii nu mu tuddati. CDC amu ko. parce que CDC boo ñëwee daañu di quittance maanaam ne